mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, ci àdduna bi yëpp euh, ñu ngi leen di nuyu euh, ci présentation bi seen mbokk Arouna Cissé ñu ngi ci dëkk bu sell bii di Poroxaan tey jii ci alxames ji yamook ñaari fan ci weeru février atum 2023 ci màggalu Poroxaan gi nga xam ne at mu nekk mi ngi am ñu ci fàttaliku soxna su tedd soosu di soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso di wayjur Seexul Xaddiim boobu ba léegi nag depuis ce matin ñu ngi dem ci bërëb yu bari di ànd ak yéen ci ay reportage di leen dégtal li nga xam ne mooy màggal gi waaye nag mën nañoo wax ne ñu ngi ñëw fii ci borom dëkk bi borom dëkk bi nag suñ ko waxee mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi wóolu gannaaw ba nga xam ne sëriñ Bàcci sekk mu baax ma yàlla na ko yàlla dolli yërmande wàcc liggéey moom mi mu toppoon ci moom yàgg ànd ak moom liggéey bi maîtriser loolu li nga xam mooy liggéey bi ginnaaw bu wujjee boromam sëriñ bi daal di koy dénk loolu ñu koy ñaan yan bi ci kawam Modou Dieng euh, waajuram nag nekk koo xam ne ab seex la boo xam ne Serigne Taïba Niang mu baax moom moo ko seexal euh, sëñ Modou Dieng moomu nag di chef village bu ab dëkk bu sell bii di Poroxaan kon nag jaadu na tey suñu ñëwee ci Poroxaan ñëw fii ci këram euh, fekk ko fi ngir fas yéene waxtaan ak moom lu aju ci dëkk bi ak màggal gi ndax taxawaay bu rëy la ci amal di ziar baax sëñ Mountakha Mbacké ak mboolem. bootuk Serigne Bassirou gi di jaar Serigne Bassirou Mbacke Poroxaan mi nga xam ne moom it taxawaay bu am solo la ci amal kon sëñ Modou Dieng ñu ngi lay euh, dalal ginnaaw bu ñu dalalee fii ci sa kër ñu lay dalal ci euh, Sene Vision ak Touba Argentine TV ak réew mi média nga fas yéene seq ak waxtaan àddina. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Arouna Cissé ñoo ngi lay siyaare bu baax euh, di yeesalaat suñu nuyoo. di ko tàmbalee ci sunu wasila di Cheikh Mouhamadul Bachiru Mbacke Paroxaan euh, ak sunu kilifa gi nga xam ne mooy xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu koy ñaanal fanu gudd ak wér ak mboolem njaboot gi nga xam ne njabootu Cheikhul Xadim ak mboolem taalibe yi ñu ñaan bés bi comme ni nga ko waxee bésub soxna Jaara Mariyamu euh, ngeen fekk ñu fii ci Poroxaan ñu ñaan yàlla ni mu leen andee ci jàmm yàlla na nu may ñëpp delluwaat noonu ci jàmm ci barkat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Aroona ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax ah, di la déglu nag ba xam ci ban boor la waxtaan wi jëm bismillah ah, fi ñu koy ah, dooree dëkk bii di Poroxaan kenn ku nekk xam na ne léegi dëkk bu màgg la dëkk bu rëy la soo ñu doon dikkal ci parcelles yi nga xam ne actuellement nombre de parcelles yi nga xam ne actuellement mi ngi ci Poroxaan ñaata la jamono ji waaw sëñ Aroona xam naa bu fekkee ci nombre de parcelles yi nga xam ne moom xam nañ ne xas nañ ko ba joxe Euh, ëpp na juróomi junni parcelle actuelle xam naa ne ay cinq mille sept cent wala cinq mille six cent parcelles moom am na fi nombre de yi nga xam ne nag moom dañoo dëkk ci dëkk bi nga xam ne wóor nañu ne muy guddi muy bëccëg ñi ngi fi loolu moo nekk cinq mille trois cent dix sept carré euh, astaghfirullah mille trois cent dix sept carré nga xam ne moom xam nañ ne ñoo fi nekk bu ko waxee nag mooy ñi nga xam ne dañ fee nekk di fay impôt lépp lu ñuy joxe ñu xam ne ñii am nañ droit war caa am maanaam daal bu ñu doon ci ne fi yeewoo loolu moom moo fi nekk mooy mille trois cent dix sept waaye su fekkee ci wàllu village bi rek la loolu moom ëpp na loolu foofu mooy li ma wax léegi ci wàllu terrain yi ñii nag am na ñoo xam ne tàmbali nañ am ñu tàmbaleegul defar waaye yi nga xam ne daal jàpp nañ leen ay kër nga xam ne wóor nañu daal ay kër yu àgg la biñ ko mujjee recensé mi ngi ci mille trois cent dix sept. Mhm. jafe-jafe nga jàpp ne yéen a ngi koy jànkuwanteel jamono bi ci waaw jafe-jafe yi ci ëpp nag xam naa mooy wàllu ginnaaw bu dee ci wàllu kër yi. biñ ci seetlu te bëgg cee def waxtaan ak nit ñi nga xam ne seenu xër moo leen fi andi ak seen bëggu soxna si mm, xaj na dañ leen ciy gën a yee mooy ñu bàyyi xel ne dëkk bi dëkk la boo xam ne dafay màgg comme dëkk yëpp euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha dafay wax ne sama dëkk bi damaa bëgg mel ne dëkk yëpp macha allah yàlla nga koy may waaye nag ci biir loolu ñun ñoo ci war def ab soññee surtout ci wàllu daayira yi dañ ciy seetlu yoo xam ne xaj na buñ ci gënee waxtaan gën coo bàyyi xel rek amaana dana gën a dana gën a dana dana gën a yokk dëkk bi dana yokkit wàllu wàllu wàllu sécurité bi euh, daayira yi bari seen këri yi dañ ko def ay dal te dëkk bi war a toll foo xam ne ay kër la war a am dal mooy macha allah nga ñëw ñu jox la terrain nga fexe ba def fa duus def fa baaj soo fa dalee ren boo boo fa del seetee déwén la loolu xam nga ab dal nga ko tuddee boo dajalee masalan un million sa daayira dajale ko su ngeen di ñëw ngeen berndeele huit cent mille yi siyaaree cent mille yenn cent mille ngeen ngeen defaat ko ca dara day xaw a doy nañ fexe ba kër yi ñu jéem a fexe collecté ko au moins dafa ay néeg ñu mën ko abal ay nit ñu fa dëkk nga xam ne bu saay saay jógee bëgg faa dem du am fu mu fa mën a làqatu waaye boo fa defee benn néeg rek bàyyi ko fa def fa bàcc dem collecté ko xam ne dara rek nga ko def saay saay mën na faa waaje ngir am lu mu yàq ci dëkk bi. dañ koy am bu baax a baax a baax même ñoom même ñoom ñi am kër dëkk fi xam nañ ko parce que boo xoolee cas yi gën di am toujours lu mel noonu lay doon toujours màggal dafay jàll un après deux mois wala trois mois nga dégg ñuy toj yi da ngay jékki-jékki rek nit ñëw ne man sama kër ga dañ ko ubbi parce que kenn du fa nekk duñ fa def duñ def kër yi noo xam ne nit mën na faa nekk dañuy ñëw rek def comme genre magasin jël seen bagage yëpp tëj ko fa dem bu ñu fa dellu seetee loolu lépp nag li ko def mooy ñàkk fàggandiku euh, nit dëkk bi war a war a war a demee damay faral di wax ne daayira yi nañ muñ berndey nañ muñ berndey ba taxawal kër yi ab diir danto comme que doole bariwul nañ xaw a wàññi berndey te jéem a taxawal kër yi ndax kër boo ko laajee pàkk ci jox la ko ngir kër waaye waaye dangay fexe ba defar ko waaye da def ko ab kese dem danay faral di andi jafe-jafe. waaw Porokhane commune bi ci boppam siège commune bi ngi ci biir Porokhane euh, waaw siège commune bi maire yi la léegi nga léegi commune bi ay la moom siège ngi ci biir commune bi seulement dafa bo dafa dafa dafa boot 63 villages moo tax mu nekk commune bu rëy non seulement Porokhane tuutiwul waaye 60 villages aussi moom la boot 63 village mu ñu wax monsieur le maire Alsane Mbaye moo fi nekk actuel. noonu la ñuy voté fii waaw ni ñuy voté ci dëkk yëpp noonu la ñuy voté fii amoon ay candidat yu sampoon seen dënd moom moo doon jongante ak ñuy wax euh, Ali Diadji mooy le maire sortant amoon aussi yeneen candidat mais kii yàlla may daal mu jël raw gàddu gi mooy monsieur le maire Alassane Mbaye mais ma bëggoon a dolliwaat tuuti ci wàllu sensibilisation ba tey ci wàllu terrain surtout bu màggal di jub nan ñuy dimbale di teel la ñoo defar seen kër yi mais ku nekk day dégg mbale day dégg mbalem Porokhane bon dañuy nit ñi bale ba jàpp ne seetal nañ am ci daayira ñuy ñu bale seen kër yi buñ balee génne ko ci biti loolu day taxalaat day taxalaat dëkk bi wàllu ndox mi itam dañ ciy jànkonteeg yu mel noonu day bari ñoo xam ne dañuy bàyyi ba màggal gi jub ñu ñëw bënn seen ay robinet rek sans pour autant ñu jaar ci commission bi su ko defee bu ëllëgee seen taw yooyu day day day ay fiddoo yoo xam ne daanaka commission bi ci lu ñuy nekk di ko di ko buusiwaat jëm nawet yooyu yëpp bokk na ci ay jafe yoo xam ne koy dund ci dëkk bi sa ñaaroon la. lan moo am ci dëkk sécurité yooyu yëpp askan na waaw macha allah lu ci nekk euh, sunu jàmbaar ji Cheikh Mamadou Bachir daf ciy bay waaram ndax boo xoolee dëkk bi ku fi daan ñëw ku nekk ak léegi da nga xam ne wuute na saa yoo ko gisee mu génn dem bu dana am lu mu andi euh, tout récemment lañ fi mujj andi ñaari ambulance yoo xam ne benn bi ministère de la santé ñoo ko joxe benn bi beneen bon volonté boo xam ne moo ko joxe donc loolu am na ci sunu post de santé bi euh, wàllu courant am extension at mu dana ci taxaw mu yokk lampadaire yi nga xam mooy lampe solaire yi ren rek def na ci def na ci deux cent ci dëkk bi waaw te daaw jéegit aussi fexe woon na ba première euh, partie bi njëkk ñëw Porokhane amoon na ci deux cent donc kon moom bàyyiwul bàyyiwul ñu ngi ota état mi ngi dugal loxoom ci dëkk bi ndax dëkk la boo xam ne dëgg la siège commune baa ngi fi waaye nag doxinu Tuubaa lay doxe muy baatum ndigal moo fi dox waaw loolu moom suñu borom defal na ne Sëriñ Basiiru euh, teg na ci nit ñi ba ñu baree bare bari tënku nañ ci loolu waaw rôle chef de village dafay mel ni. Mm, médiateur nga ni ñu ko mën a waxee parce que primo mooy kër yi ci ay jafe-jafe la ñuy nekk te ñaare ñëpp waxtu bu nit ñu jógee dem gendarmerie wala police rek yàq bokk dikk na donc bu problème amee primo ci yow la ñuy war a njëkkee bu ñëwee nga waxtaan ak ñoom xool parti bu ci nekk nga déglu ko su fekkee loo mën rek la nga réglé ko woo leen ñu ñëw daje ñu toog waxtaan def ko muy mbirum famille ñu xam ne ñun ñoo bokk dëkk bi. donc waruñ ko yàq waruñoo seetaane keneen jóge ci bit di ñëw di ñu àtte ci biir dëkk bi loolu des fois danañ ciy jéem soo xoolee nag téeméeri cas yu am ci dëkk bi juróom-ñeent fukk juróom-ñeent fukk yëpp dañ ko ci réussir loolu moom bokk na ci sunu rôle li ko ñaareel it di bàyyi xel nit ñi ak dëkk bi lépp luñ ci seet xam ne bokkut ak yi lay dëkk bi ñu di ko tere bi ko ñetteeli lépp loo xam ne xalaat nañ insécurité la wala mën na jur loraange ci askan wi ñu fexe ba teel koo wax Cheikh Mouhamadul bassir mi nga xam ne moo dox suñu diggante ak sëriñ bi waaye laa moo dox suñu diggante ak état bi côté boobu moom itam mën caa def wàllam ñun daal daanaka euh, médiateur lañ ci suñu diggante ak nit ñi waaye suñu diggante ak sëriñ bi nga xam ne ñooy dox seen diggante ak sëriñ bi waaye ñoom it euh, ñooy dox seen diggante nit ñi nga xam ne daal lépp loo xam ne ndigal la bu jaaree ci ñun ñu fexe mu àgg ci nit ñi nit ñi lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la bu jaaree ñu fexe mu àgg ci sëriñ bi 2023 bi màggal gi jàngat ci CRD CDD Mhm. waaw bu ci amee daal néew na mboolem di nga xam ne waxoon nañ ak ñoom daal liñ ci xaw a seetlu bu fekkee des am na lu ci des daal ci wàllu ndox mi lay doon ndox na comme ni ñu koy waxee mooy loo xam ne bu fekkee téeméer nit ñoo war a soxla nga xëy xëy un million de personnes soxla ko day xaw a nekk jafe-jafe wax naa ne Porokhane village bu ndaw la par rapport ak li fi yeewoo donc suñu xëyee nag ay millions ngi nit daje fi te ñëpp war a soxlaandoo benn mbir la dara dara jiituwul lu ñu bëgg ndox kon bu diir bi ñu koy soxlaandoo dana xaw am jafe-jafe waaye yàlla dogal na ne bu fekkoon téeméer mën naa ne juróom-ñeent fukk bi yëpp réussir nañ wax dëgg yàlla loolu moom li ci état waroon def def na ko man la xam ne état bi li nga xam ne saartoo woon nag ak ñun ci wàllu oto ndox yi ci wàllu réservoir d'eau yi ci wàllu gasoil bi nga xam ne war na ko jox oto yi nga xam ne ñooy def rotation yi di andi di roote ci dëkk yi di andi ñii ñoor la ñuy roote ji ñii dëkk ba ñuy wax Kër Moussa frontière ñii duye duye ji Paoskoto yooyu yëpp wax dëgg yàlla yàlla def na ci tawfeex ba nañ ko waxoon ak sëriñ bi defe nañ ko noonu ci dëkk bi ndax ne demul gul ci kër yëpp donc am na ñoo xam ne ay bassin la ñuy am ñi ay bâche à eau la ñeen di jox loolu nag nga faaw état jàpp ci bien vrai que sëriñ bi loxoom waaye état faaw mu jàpp ci loolu lépp luñ ci sàttoon ak ñun def nañ ko kon li ma wax daal buñ liñ ci seetlu daal mu ci xaw am jafe-jafe bariwul te wax dëgg yàlla dara warlu ko lu bëggandoo gi waaw ndax ñëpp a koy songandoo te duñ ñëwandoo Porokhane actuellement poste moo fi waaye nag suñu néxar mooy mu am centre de santé parce que xam nga dëkk boo xam ne ah kay lu war la ndax boo xoolee euh, yaakaar naa ci semaine bi ñu passé mais de la santé ñëw na fi bokk na ci li ko sëriñ bi wax dëkk bi li fiy daje rek jar na mu am poste de santé li fi dëkk itam wax naa la léegi nombre de village yi nga xam ne moom la boot jar na ko bien vrai que jege na ak Nioro waaye bokkuñu popularité parce que Nioro commune la euh, département la mais commune bi dafa rëy. boo xoolee mboolem département Nioro ñoo ñoo ci ëpp ay village yoo xam ne moom la suñu commune bu de santé parce que war na fee am te li fi daje rek par màggal ñoom bu ñu xoolee li nga xam ne moom la ñuy mob jaadu woon na ci Porokhane am centre de santé kon ñu ngi koy ñaan bu fekkee lu mën a nekk yàlla na ko yàlla jàppandal barkeb Seexul Xaddim sëñ Bàcc Seck dañ naan mooy ñay wi nga xam ne moo ñu ñun ndax sëñ bi dañoo teel a boole ak moom te mu yéene woon ñu li ñu yor yàlla dogal mu teel ñu cee yee gunge ñu ci itam nag ab diir boo xam ne ànd na ko ak ñun bàyyi ñu lépp ngir bëgg ñu xam yoon wi kon dañ koy ñaanal suñu borom mu yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem yàlla sàmm ak njaboot liggéey bi itam yàlla bu mu yàq suñuy loxo boo liggéey bu ñu dajeeg moom buñ ci rus bi barakat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi gërëm sunu maam soxna jaariyatullah mariama di ñaan suñu borom taas ñu ci barkeem gan ñi ñëw ñëpp yàlla yóbbuwaat leen ci jàmm barkeem seexul yàlla may ñu teew ko déwén yu bare bare bare di gërëm say auditeur ak say téléspectateur yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah ku jërëjëf euh, Modou Dieng nekk chef de village bu euh, dëkk bu sell bii di Poroxaan da entretien bi nga xam ne euh, am nañu ko ak moom mu leeral ñu situation dëkk bi yi fi am wàcc ba jafe-jafe yi nga xam ne aussi dañ koy jànkonteel ci koor bi nga xam ne déjà déjà yor na ko. ci wàllu màggal géege ci aju li ñu sartonte woon ak kilifa yi gis ngeen taxawaay bi nee na macha allah. bu doon cent pour cent la quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp euh, kilifa yi matale nañ ko donc lenn rek lañ fi nemmeeku tuuti muy jafe-jafe ndox te loolu xaj na euh, mbooloo mi moo ko ëpp doole waaye jombul ci année yii di ñëw daañ ko gën a waajal bu baax a baax a baax mu tëjee nag ak ki nga xam ne mooy euh, moom la wuutu ci liggéey bi muy Bathie sekk loolu yëpp mu koy sante Serigne Bassirou Porokhane muy delluwaat ci xalif général de des Mourides Serigne Mountakha Mbacké kon xam naa ne duñu def lu dul rek sant leen gërëm leen waaye sant ko aussi gërëm ko ci euh, nangu gi ak ñun ndax xat-xat yi bari na euh, macha allah mu mën ko ànd ak ñun ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax ci présentation bi seen mbokku Arona se ci wàllum caméra bi Modou Lo euh, moo fa faree woon ñu nekkoon fii ci Poroxaan ngir ànd ak yéen situation màggal gi ci lépp lu nga xam ne rek mu ngi fii xew ngeen mën di ko bàyyi xel jërë jëf.